salaam salaam bëgg nañ baax maa ngi ziar booy ñaa la di bëggee ñëpp di ziar ñëpp waa di wax ne nag incha allah am nañu bis suñu bis di nuyu fans yi di nuyu waa Pikine bu baax a baax di leen wax ne am nañu bis bu rëy mun incha allah le set août Thiat Sarr Alassane Diogo muy concert bu mag boo xam ne suñu frère moo koy tëgg waal di ko tëgg suñu team suñu équipe di wax loolu suñu bos bopp la xam nga bu jeexee jeex na ñuy woo ñëpp Pikinois yëpp ak fans yëpp ñu jàpp ci bu baax incha allah. jàppee gaayam gaa yi nekk ci biir di ci jàpp bu baax a baax dal jàmm bu jeex jeex na. leen jox seen wàccuwaay bu baax maa man sëñ bi man d'accorduma ci loolu nga wax noonu ndax soo nee joo day dundaat fee ne mu bàyyi maa joo dund fee dund bu neex man d'accorduma foofu d'accorduma ndax kon dafa mel ni kon. ñu nekk ndax parce que du ñuy joué dafa am parce kenn dafa mel ni Sénégal boo fi nekkee di def lu bon rek danga caa war a am ndam déedéet euh, kooku man d'accord ma ci parce que joor dafa war a ma dem ba desiwaat ci loxo yi maa joor su ko defee naa dafa tam dafay daal di taxaw su ko defee dañuy waxam xam foo xam foofu noonu lu bon moom amul benn njariñ ku koy mën di def rek doo mujjee ci sa ndam. man sa gàcc ngay toog man pour man loolu laa gis moo gën joo dund dund ci benn famille kon naa day am li mu bëggoon parce que naar loolu la bëgg naar dafa bëgg moom ak doomam ak maa joor moom loolu la bëgg mën a récupérer alal ji mu yor moom loolu moo ko ci dugal nga sëy bi sax intéressé wu ko alal ji moo ko intéressé kon joor su bàyyee maa dem nekkaat ci famille bi daf dafa indiwaat beneen film lay indiwaat mais dootul nekk kon Madior ak Dior déedéet kon day nekk te war na nekk beneen parce que dañ ne Dior ak Madior kon lu mu métti métti ñu film bi ñoom ñooy mujj voilà mais pour moom mu nekk ak moom d' ci loolu d' ci moom moom d' ci moom. leen xamal na man ci série Madior ak Joor laa bëggoon participer rek di wax ne série bi moom wax dëgg fa neex yàlla au début neexoon na trop mais jamono ji moom ñoom li ma gis ci série bi ñoom yeetewuñ parce que Madior dèjà ni mu yoree aawoom baaxut te tey ji góor ñi tey ji buñ xoolee ci ñoom amaana du baax parce que nit nekkul ne loo def ci mbedd ma rek la ko aaw waxee rek danga koy avouer du noonu ñu ngi naan ko dama nekkoon ak jigéen dama demoon rendez-vous ak jigéen loolu du noonu nit ki jigéen ak nu mu mënti métti bu la bëggee toog bi la muñal da nga koo récupérer nekkul même boo defee naka si du noonu sax waroo ko ko waxee noonu noonu noonu rek loolu moom bokkul ci loo xam ne ni daal dafay dëgëral sëy ba pare tamit yéete wu ko daal laa moom lu ma si wax di wax ni daal seen série bi moom mooy loolu salaamaaleykum lu xew TV maa ngi leen nekk tur ak sa man théâtre daal na ma daal wante jaaxal na ma trop trop trop ana joor kan na def kan na gaaw ba wër bu mu wër wante daal nañ ko jouer double rôle daal nee dem dem dem ba si kanam ba ñu xam ne kii mooy ñoom ñetti seex leen kii naajo mooy rakk bi mu xam ne lu bon bi li ñuy yëpp jox jox mu vengé wu daal bay boole seen maajoor daal métti na trop vraiment bëggoon naa na ñoom ñaañu sëy bëggoon naa ne bëggoon ma ko noonu mos eh, a kii nii ma ko loolu monsieur docteur bi vraiment maa jël laa laa koy te yaay jàll nag waratoon dee dee vraiment waratoon ma kan ma xamee naa jëm daal moom fan lay mujjee. yeneen naka daal mu dem prison parce que lu bon lu muy def nii yëpp yëpp moom wenn ba lu bon lu mu doon def yëpp ñu këpp ci kaw yaama parce que yaama complice la te fu mu nekk nii maajoo dangay def nag pour mu mer mu la wax ko vérité bi noonu nag maajoo mu noon def tey premier xaar ci joor ba moom du comprendre du comprendre lan moo tax màggal bi jot na wàllu màggal nag su jot waroon na ko taxaw baax waroon na ko taxaw ku tee bi te ko daf ko bàyyi noonu moom laa dem ko bañ ko bañ ko sàcc yaama loolu daal la defee dama yaakaar ne affaire bi daal da ngay war quoi ndax nu tudd maajoor mais joor tamit mënul mënul nekk ak waa ji parce que waa ji boo ko xoolee magam la lu foofooy cool bi foofooy problème bi nag joor waa ji magam la parce que yaayam ak yaay kooku ñoo bokk ndey ak baay léegi ci ko xool Pa Ibrahima maajoor comme mun naa wax Pa Ibrahima pour man en tout cas Ibrahima bon kooku nijaayam la nijaay doomu nijaayam la ci doomu nijaayam la nu mu tudd maajoor doomu nijaayam la léegi mun na sëy ak kooku mais waa ji moom magam la ndax yaayam ak yaay yaay waaj ñoo bokk ndey ak baay kooku mënu ko takk léegi bu ko takkee tamit erreur la comprendre nga mais nag film bi moom vraiment nice na nice na vraiment man moom film bi moom lu may def daal en tout cas maa ngi yàlla xam daf may sore trop dafa sore kii man trop trop trop billahi vraiment à chaque fois su ma koy xoolee jooy rek moo ma ciy desal. waaw asalaamaaleykum maa ngi di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant mooy doog a dugg ci groupe bi damay seetaan euh, chaque jour seen émission waaye naajoo jooy moom nekk na théâtre bu ma neex théâtre bu ma sopp théâtre boo xam ne yàgg ma ko seetaan waaye bëgg naa ko lool macha duma ko rate mukk billaay neex na torop sax mais maajoor moom sa fere dafa mel ni xale bu jigéen bi dafa bëgg pour mu pour mu mettitil yaama ba yaama mën a génne secret bi pour man ko koo wax looloo tax mu ànd ak xale bu jigéen waaye gëm naa ne bëgg ko daal pour mu mettital yaama ba yaama mën a génne secret bi bi xam ne xam na ko ci diggante moom ak yaama wax ko loolu doo tax mu ànd xale bu jigéen bi Madior Diop daa nekk na bu neex te suma seneen mu continuer ci kanam incha allah. asalaamaaleykum waaw man de euh, série Madior Diop dafa doon série ma neex dëgg yàlla série bi su ma ko seetaanul télé sax maa ngi koy kar YouTube pour mën koo seetaan neex na am na chance mais lenn dongo ma si jaaxal ni Madior gaaw fàtte joor euh, Dior tamit amul benn souvenir bu muy def si Madior man daal loolu moom xaw a jaaxal tuuti. Eh, Madior ak Dior neex na trop macha allah neex na lii dama gis affaire moo tax ma jël numéro bi si wax ak yéen def noonu la noonu la soo yàggee yaama dina ko wax li xew lépp boo yàggee nii si jigéen xam ne yaama loolu bu naqari lépp lay wax.